suñuy jaar-jaar daal dañu su ko xaaritoon jar bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. kon mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare. ci guddu gu tedd gi nga xamne ne lañ fi dajé lepp luñ fi yëngu rek yàlla nañ suñu borom gërëm ci barke borom niko gi su ko defee ni ko Maxtaar waxee ci ginnaw rek sant mbolém ñi nga xamne ne ñu ngi dégg kaddu gi nim ko waxé ci suñu kilifa di seigne Abdou Cissé kilifa kër gi ñu yagg and ak mom guddi lool di mag ci suñu jëwriñ suñu magu daara jëwriñ jaase siise ñu koy siyaare bu baax moom itam ak mbooleem suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu fare ginnaaw sang bi cheikh pap sar bàyyi ko ba funjuñ ñëw ànd ak ñun gàmmu gii nuyu ziyaare itam jëwriñ lamine camara wax dëgg yàlla di suñu jëwriñ suñu magu daara yàgg ànd ak ñun jataay yu mel nii siyaare cheikh mamor bu kolda di jëwriñ ci liggéey bii wax dëgg yàlla di ci feeñal yu ama am solo kon yàlla na yàlla barkeel nuyu nag suñu jëwriñ seen Alioune Thioune ak mbooleem mbokku taalibe yi ci yitte ji ak pas-pas bi ndax guddik mawlud guddi la goo xam ne ëpp naa neenal li am solo mooy màggal ko màggalin wu jaar yoon te Alhamdulillah, suñ borom defal nañ ci tawfiq ndax guddi go xam yang koy ci jang alquran jang qasida. rawatina qasida bu melni jazbul qulub nga xam qasida gi bam jeex man nga ne Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba khadim Rasuul lim ci ciy lepp lépp sallallahu alaihi ba ci ciowal gamu gi tay ñi naan jar naa def jarta def def gi bidaa la ndax diine dégg-dégg yi daf cee bari koo xam ne sa dégg-dégg lim la jox mooy bañ a def bañ la def ñi nga xam ne seen dégg lim leen jox mooy yow mi ko jàppee bidaa da ngaa juum kon bàyyi leen ñu def gannaaw yàlla dana àtte boo liggéey te jàpp naa ne def te li ngay def dëppoo ceeg Sëriñ Tubaa dal na xel lool te boo xoolee ëttu suufiyanke yi nekk ci réew mi ak yi ci bitim réew ku ci neenal gàmmu amul te ëwlu tasawuf mooy ñi nga xam ne dañu won ginnaaw àddina ak i bagaasam dégmal seen borom ngir sàkku ngërëmam te demee ci pas-pas bu wér boo xam ne lépp lu koy xajamal bu dee wax duñ ko wax bude dee jëf duñ ko jëf na ko mel ni sëñ bon foko as na bo ci mbindam lim wax ci gamu doyna na sëkk ci kenn ku nekk bàyyi xel guddi gii xam ne mën na cee loo xam ne mën na koo jariñ diiru dundam ni ma ko waxee sànq li am solo mooy màggalin wi ndax lu mën a rek lu mu baax baax baax baax baax am na noo ci dara mën nga cee jëlee yeddeel sax xataa julli mii li muy baax baax baax am na ñuy julli yàlla tëkku leen ci alxuraan fa waylun lil musallin allazina hum an salaatihim saahuun allazina hum yuraauun wa yamnauna almaauun julli baax na lool waaye yow mi koy def soo baaxut mooy tax julli gi yàqu woor mën naa baax lool te ku ne xam na ne baax na waaye yow mi koy def soo baaxul moo yàq koor gi ci joxe joxe ku ne xam ne lu baax la fekk ku soxla nga jox ko waaye boo ko joxee ngistal yow mi nga xam ne yaa ko jox yaa baaxut soo baaxoon ngistal du ca rax wanewu du ca rax xeebal du ca rax da koy jox te jëm yàlla kese tax su ko defee ni joxe baaxee jëf ji baaxee noona lu koy yàq du nekk ci yow. gàmm gi noonu la mel ak a baax waaye ndax yi yow mi koy def ni nga koy defee baax na yow mi koy defee ndax baax nga subaa suñu borom day daal di gërëm moo tax sëñ bi ne mawliduhu mubaarakun muxtaramu taazimuhu yan xatimu ala zawi taqaddumi sëñ Tuubaa nee na magal ku mbooloo topp màggal guddi gën saa salaam daf laa war te màggal gi it lu màgg la lu ñu barkeel la waaye sart bi mu ci teg mooy taazimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muazimi da koy màggal waaye màggal gi dafay dëppook sunna yónni saa salaam sunna yónni saa mooy jàngaleem ku jàngal ko màggalee alquranul karim màggalee ko tudd suñu borom subhanahu wa taala ko sikartur yàlla màggale ko julli ci yónni lii daf ñoo waroon suñu diiru dund waaye gannaaw jamono xat na ñu tënku tënku gu jéggi dayoo te li ëpp ci li tënk nit ñi seen yëfi bopp la rek léegi nag fexe ba am guddi goo xam ne dañuy fexe ba tënk jullit ñi ci leeralal leen kan moo yun saa salaam lan moo ko taxoon a jóg lan la woote li mu woote fu lay fekk ak fu la jëme lii dafa waroon di am daa iman rawatina bii jamono nga xam ne déggin wi am ci yonent bi ak a des te neex naa gis yun saa salaam mën nga ne. ñeent fukki at bi mu koy am ci la ko leeru boromam dugg mu woote bi mu amee juróom benn fukki at ak ñett muy 63 ans ci la yàlla dogal mu génn àddina kon ñaar fukki at ak ñett la woote waaye ci diiru ñaar fukki at ak ñett yi xoolal école bi nga xam ne moom la sampoon kilifa yi ci génnee boo dee Seydina Aboubacar ca mbaax ga ca njub ga ca sell ga keroog yoon saa sana wàccee ab liggéey moo ne woon képp kuy jaamu Muhammad mu ne fa inna muhammad xat maata wa man fa inna laa qayyun laa yamuut lii ki ko wax am na lu mu jëlee ci yonent bi saa sam loo xam ne lu wér la ku doon jaamu muhammad xamal ne muhammad xat maata faatu na ñàkk na bakkanam yàlla mi ko bindoon moo jël bakkanam tey waaye kuy jaamu yàlla xamal ne yàlla aji dund la du kuy dee lii mi ngi ko nàmpee ci yonent bi saa salaam noonu ngay déggee Seydina Omar al Faaruq ca njàmbaaram ca pas-pasam nga xam ne sëñ Tuubaa ñuy jàngal ci raaya ne mooy ki mottali jullit ñi ñu nekk ñeent fukk malaaka suñu borom mi bëgg lool keroog ba mu jaayante gi saa salaam nekk ab jullit na mujj mel ci pas-pas na mujj mel ci yar na mujj mel ci teggin na mujj mel ci yàlla suñu borom jaral ko ba ci Seydina Ousmane Seydina Ali nga xam ne yont bi nee woon na su ma dee néeg néegu xam-xam Seydina Ali mooy bunt bi. ak yeneen i jàmbaar yoo xam ne boo leen di lim doo ko takk ci saxaaba ba tax sëñ Tuubaa ne la ci am daax ayaa xaadimal muxtaar laa tansa saxbahum faman yan sam fan matqu matqun muqattau mooy booy tagg yun saa salaam bàyyi ay saxaabaam nee na tagg gi day cëkk day yàqu ndax yun saa salaam mooy yoroon xam-xam bi waaye moom képp képp bu ko kenn dimbaliwut woon jàppale ko ci liggéey bi lislaam mën naa bañ a yegg si fii waaye daa joxe xam-xam bi gaa yi téye ko dund ko dundin wu sell ba mën koo jàllale loolu ko indi fi léegi xalaatal diirub ñaar fukki at ak ñett fi mu jaarale saxaaba yi bañ am yar am teggin di wéetal seen borom bañ ko bokkaale ak dara di jëfee ndigali yàlla yi ni ko suñ borom diglee di nga gis koo xam ne bokkul ak saxaaba ya ñu bare bari ci ñoom parce que ñu bëri te ren jii wala tey jii. dañuy judd ci lislaam bokk na ki nga xam ne dafa dégg woote yonent bi salaam mu ñëw nangul ko tuub dugg ñu ne ko jàppal ci lii mu jàpp ci bàyyi lii mu bàyyi ko awal fii mu aw fa jëfee lii mu jëfe ko ba xëy séexlu lu bon gi foo na natt weesu na ko tey nag dangay gis koo xam ne jut na ci lislaam ba am fanweeri at ba am ñeent fukki at nga xam ne lim dund lislaam mën nga ne yoon saa salaam dund ko ay saabaam ndax ñaaf fukk at ak ñett ci la woote jub xocc te ko ticc jub xocc te ko ticc laa la wax te boo ko ne woon ñaata nga dund lislaam mën na laa wax ñeen fukki ata ngi nii juróom fukki ata ngi nii juróom benn fukki ata ngi nii yaa ngi ci biir lislaam am tawféexu say waajur jur la ci lislaam mën laa teel a waajal ci xam-xam ci njub ci alquran ci leer ci bëgg yonte saa salaam yoy yooyu yooyu am ci ba nga xamne ne gi fo nat pas-pas bu weef bi fekk ko fa da ngay dégg ku ne julit la mën naa def lu ne waaye waxtu yi moom duma ko sàggane sàggane waxtu yi julli yi weesuwut sañ a def lu ne gannaaw boo julle weesuwu ko laa la wax ndax julli jàkkaarloog yàlla bu la netis ne tisbar nga ak sa borom gannaaw bo jullee suba war nga rusa jëf ci diggante bi lu yalla xam ngay ak mom tisbar ndem xam nga bo jakarlo ak mom tisbar julli war nga rusa jëf ci diggante tisbar ak takusan luy tax jakarlo ak mom takusan am kersa ta mo ne l'islam tek na sa loxo lepp luy tax nga am sa ngeureumal borom ak mom te siggi baña seug ngir kersa wala moy Yalla waye réeree l'islam réeree yonent bi réeree alquran su ko defee dund l'islam ju woyof toy joo xam ne ak a wuteeg lislaam ja woon démb guddi gi xam ne ci lañ war a dajaloo kenn ku ci nekk nam sa morom ci pas-pas ci yitte ak dellu settantal yoon saa salaam la ko ak mooy kan lolo, ku koy neenal wala nga jàpp ne jaru ko yow yaa xamul li ko jar yow nan la ko laaj gàllankoor it am ci ndax dañuy woote guddi yonent saa salaam mais boo dégloo dëgg-dëgg li ngay dégg du yonent bi moo tax ki koy dingaat wax na dëgg di léeg-léeg waaye nam waroon a demee bu ñu demee rek la ci Sëñ teg mooy am mu bi sunnati naa lil jannati nee na màggal ko ci sunna daf ñuy wommat tàbbal ñu àjjana nga xam ne ku ko fekkee diir bi lu mu gàtt gàtt sa cofeel ci yonent saa salaam dana dolleeku sa cofeel ci gëstu ko. dana dolleeku sa cofeel ci fexe xam lim indi dana dolleeku ndax suñ borom moo ne lum leen indil jàpp leen lum leen tere bàyyi leen wa ma aataakum rasul fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu mu ne fantahu <coughs> lum leen digal <coughs> nangeen ko def lum leen tere na ngeen ko bàyyi léegi nag boo xamul digal yi noo koy toppee boo xamul tere yi noo koy bàyyee mu waxaat moom suñ borom ne laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana am ngeen ci ndawam li mom suñ borom subhanahu wa taala muy sayyidina alayhi salaatu wasalaam modèle boo bo ne bu mat a mat la bu rafet nga xam ne loolu ñu xewal tey muy nga xam ni muy soloo nga war a ni muy doxee ngay jéem ñu ko sa bët nga xamne ne lu mu jëfandikoo rek dañuy jàpp ne moy xew ci jamono jojje ku ko wul yow yaay ki nga xamne do nandite yow ko kenn la ci julit moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ki waxinam gën jëfinam gën jaar-jaaram gën léppam léppam boromam gërëm ko ba moom mu waxal bopam ne man ataa nii daxalal janna wa man asani faqat abba ku ma topp dem àjjana waaye ku ma mooy nag yaay ki bañ te yaay ki bañ yi dafa waxoon ne sama xeet yëpp danañ dugg àjjana ba mu des ko bañ ñu ne ko yónni saa kan mooy bañ àjjana mu ne ku ma topp dugg àjjana ku ma mooy yow yaay ki bañ kon daa mel ni dañ koo yoral boruk topp léegi nag ki jàpp ne saa sam newatu fi nan la koy toppe gàllankoor bu rëy. dana ca am parce que watu fi mi ngi mel ni professeur boo xam ne jàngalekat bu xarañ la yow nga war a teew ci enfem wala nga teew ci classe am nand ci moom xam-xam bu wér su ko defee jëfe ji ko mu jëriñ la professeur boobu nga jàpp ne newatu fi nooy jàngee ak fooy jàngee lu dul ne dañ laa dimbale xamal ne professeur du jëmm professeur xam-xam la yun saa san dafa am wet goo xam ne du ci jëmm leer la dëgg la njub la mbaax la sell la di tuxu ci barab di tuxuwaat ci beneen barab di tuxuwaat ci yeneen i barab nga xam ne fu mu feeñ la doon def màkk la fay def neex naa gis bu ñëwee xam-xamu mathématicien ku mu nekk ci yow am na lu muy def xam-xamu physicien ku nekk ci yow am na lu muy def xam-xamu technicien kum nek ci amna lu muy def jëm ji ça importe peu waaye jëm ju mën solo xam-xam bobu le nek fa dana am num feño feeñoo yéen saa lim nekke woon Makka ci xamle ci yëgle ci gindé xam-xam bobu len bi muy dem yóbbaale wu ko fii la ko bàyyi motax mu bok ci waxam al ulama warasatul anbiya mune borom xam-xam yi ñoy doon yonent borom xam-xam nag bu doonee yonent war a mën lu bare baree bari ci lu yonent mënoon ndax yonent am na ay jagle yoo xam ne ñoom la ko yàlla jagleel ku dul yonent doo ko laal te mën na la koo may it nag waaye dana am wuute tuuti bokk na ci li yàlla jagleel yonent mooy li ñuy wax ismatu ab yonent mënta mooy boromam waaye ku dul yonent mooy yàlla jomb lu dul ne da ngaa àgg ci màqamay waliyu su ko defee suñ borom baaxee la la muy baaxee yonent yi waaye li nga xam ne mooy différence bi mooy bu dee yonent yàlla daf koo warlu dafa warlul boppam ne ab yonent la koy musal ci mooy yàlla waliyu nag jaayis la bu ko neexee may la bu ko neexee xañ la moo tax ngay dégg wilaaya gu yàqu wilaaya gu yàqu mën nga koo dégg waaye nubboo gu yàqu doo ko dégg yonent la woon doo ko dégg de waliyu la woon mën naa nekk nit nag dina dox ci wilaaya dox ci wilaaya ba boromam baaxe ko wilaaya goo xam ne ni yonent dul yàqoo noonu la wilaaya gi dul yàqoo boo demee ci mbindam sëñ Tuubaa leeral la la le yàlla may na ko texe goo xam ne texee di du topp ca ginnaaw nga déggee ci ne kon am na texe goo xam ne texe di mën na caa topp di ca ngay déggee ku naan la texe naa mucc naa texe naa mucc naa texe mu ne texem géeg mucc gi texe di mën naa topp ca ginnaaw mbaax goo xam ne mën na laa jural mbon bu la gàllankoor ba texe texe dil la waliyaasu billaah <clears throat> loolay mbon gu weex tàll ak mbaax gu ñuul kukk neexut a dégg mbon gu weex tàll mbaax goo xam ne daal ñuul kukk mbon gi weex tàll mooy mooy yàlla gi nga xam ne dafay tuubloo borom loo ko jàq loo ko digganteem ak boromam ba mu am yéene doo ca dellu mukk ci àddina jamono ba muy bon nag yow mi yàlla baaxee mbaax goo xam ne daa ñuul mën nga koo xeeb di mën ngaa jàpp ne du dara du tuus mooy kotu yàlla bii nga xam ne naan sàngara nangam ak nangam ak nangam te moom ndekete yoo bisa ngi ñëw boo xam dana ko tuub réccu ko jóge ca te dootu ca dellu ba faw kii mbon nga daa weexoon tàll borom mbaax goo xam ne nag dafa ñuul kukk mooy borom julli yaag naafale yaag wirdi yaag tudd yàlla ga te juralu ko lu dul xeeb ki nga xam ne melul ni moom baax nga de waaye mbaax gu rax mbon la goo xam ne mbon gi moo gën a dëggu la ngay jëf ca kaw lu baax la waaye xol bi nga xam ne moo nekk ci biir te xeeb sa moromu mbindeef di la nawloo sa bopp xol boobu baaxut te boo seetlu yéen saa salaam lim ñu indil. dafay baaxal biti baaxal biir li ëpp ci jullit ñi nag daanaka dañoo jëfandikoo lii baaxal biti gi rek mooy colko gi tax ñu ne diw ko yiw la melo wi tax ñu ne diw dey jullit la jëf yi nga xam ne mooy tax ñu njort ci aw mbaax mën a julli mën a woor mën a asaka miin yoonu màkka wi di saraxe di jàng alxuraan jàng xasida jàpp sa njàmbur lu sa yoon nekkul doo ca dugg lii doyut parce que yii nit dana ko def waaye la muy yëg ci biiram ci xolam ci pas-pas buy tax muy def yii lan la bëgg àjjana mën naa tax te bëgg àjjana lu suufe la bëgg àjjana képp képp bu la taxee di jullee ko woor ko asaka ko la nangam nangam yaa ngi jaamu yàlla naam waaye mbooleem xeeti jaamu yàlla yi bi ci gën a suufee ngi nii taxu ko am solo ndax danga amaat kiiraay. lan mooy sa kiiraay sa diggante ak sa borom mbindeefu yàlla muy àjjana te yàlla ba mu lay bind boppam a taxoon fan ngay jaar ba déggaa sa àjjana jaamu yàlla te jëm yàlla kese tax dafa am jéego boo war a seqi moo tax jullit warta doon ordinaire ordinaire mooy fii juddoo lijjanti naa ba xam ni ñuy jullee yor samay saar yoo xam ne moom laay baamu waxtu wu jot baax na de waaye nag ni ngay fexe sa compte bancaire dolleeku fexe ba sa am-am ci xaalis dolleeku noonu nga war a fexe sa xam-xam ci sa borom di dolleeku ngay xam ci yàlla loo xamutoon di yëg ci yàlla loo yëgutoon te lii bu fekkee am na dafay dolli sa cofeel ci suñ borom yàlla nag loo koy gën di bëgg di gën a mën a nangu ay loo koy gën di bëgg di gën a mën a jëfee ay ndigalam loo koy gën di bëgg di gën a mën a bàyyi ay tereem bëgg yàlla gi a des bëri na taalibe yoo xam ne seeni sëriñ lañ gën a bëgg parce que tax sëriñ lañ xam xamuñ yàlla te sëriñ nag boo ko xamee moom képp te xamoo yàlla du sëriñ sëriñ boo ko xamee te mat sëriñ da lay xamal sa borom parce que sëriñ dafa wuutu yonent bi saa salaam yonent saa salaam li tax yàlla toppaloo ñu ko mooy woo gim lay woo jëme ci yàlla wa daaiyan ilallahi bi iznihi dañuy woote jëmee fan ilallahi bi iznihi ci ndigalu suñu borom koo xam ne boo ko toppee jëmul ak yow ci yàlla boo ko toppee koo topp yàlla suñ borom nga topp motax nga fekk ci alquran in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen waaye boo bëggee yàlla bàyyi fi yoon saa salaam fooy fekk yàlla du am wëral asamaane juróom-ñaar wëral suufi juróom-ñaar say tànkay damm waaye doo mos wax ne àgg naa ci yàlla loolee suñ borom baaxee wu ñu salaam ba ku bëgg a ci yàlla ne ko maa ngi bu ne xam ne yonent saa salaam bàyyi na fi xam-xam booba bàyyi na fi mën-mën booba turuxu suuf yi ngay dégg ci réew meeg bitim réew yëpp li kepp leen tax a jóg mooy donn yonent saa salaam ci jël jaam ñi delloo leen seen borom bañ àgg ci moom xam ko bëgg ko jaamu ko ba ñu ko bokkaaleeg dara ku wekku ci tarixa nag te mënoo faa jëlee lii war ngaa laaj sa bopp yonent saa salaam ban ndab la yekkal tariixa bi boo mu war cee mën a yor sama loxo tey la réer de. waaye mag yi démb bi ci Cheikh Tidiane Serif Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul Cheikh Abdou Khadir Jeylaani imaamu Chazali kum mën a doon ci turuqu suufiyee yi li leen taxoon a jóg mooy ku leen jox sa bopp joxoo leen sa bopp yàlla nga jox sa bopp parce que ci yàlla nga jëm moo damay faral di wax ne gaa yi nga xam ne dañoo gaaw a bokkaale loo boo waxee ñoo la bokkaale la bokkaale la xamuñ li bokkaale da ngay gis waa ji raamal rek nga ne ma ngay bokkaale surku lii yàllaa ko jagoo. est-ce que yàlla taxul muy def bu ñuy julli fu ñuy sujoot bu ñuy julli fan la ñuy sujoot ci suuf ci suuf lañuy teg suñ jë waaye ndax suuf si lañ ko defal waa léegi ki jël jëwam teg ko ci suuf defal ko yàlla mënu koo def ci nit nit gën a tedd suuf fuuf te yàlla moom ko ah kay li am solo mooy pas-pasu jëf ji moo tax weddi jaahil moo koy gaaw a def jaahil moo tax borom xam-xam yëpp d'accord ne balaa ngaa weddi nitu yàlla da ngay jamononteeg moom <coughs> Baye Matar ñoo bokk jamono wax na loo xam ne kawe na sama dégg ma wëri ko ba gis ko ne ko Matar lii nga wax kawe na sama dégg loo ci jublu mu ne nangam ak nangam ak nangam laa ci jublu su ko defee nag may soo ko mën a setantal wax ji dëgg dëgg seetantal bu jubee ma ne jub na bu dëngee ma ne dëng na waaye fekk nitu jamono bu mbind mbindam wax waxam ba xëy làqu sax te wax yàlla gërëm na ko yow xamoo fu mu waxee xamoo nu mu waxee te mënoo koo laaj yi doo ci maanu waaye nga jëfandikoo sa gàtt xam-xam ak sa gàtt xel ne danga da nga koy jéem a toj tojatoo rek tooñ ko tooñ sa borom ba mu jural la alku sëñ bi ñuy jàngal ci masaalikul jinaan ne ومن تعارض لشر الاولياء بالنخ والعرود من قد ان بوليا كيب كو خامني ميغي غارال وليو يالا يي تي نخو ولا عرود نينا بلا نغا دي يالا نتولا <coughs> كلام الاولياء اذا دهاك يا بليد فقل كما قال زكي عبد الودود كلام الاولياء لا صافهم لانني انا هنا وهم هم من يا بي نون لاكو تودي يا بليد <coughs> يا بي waxi góor yàlla yi bu fekke dala yem dala jomal na nga wax la ku ñaw ka la ku ñaw ko waxon Abdul Wadud mune waxi gaay yu bax yi deggumako ndax ñom ñoy ñom man may man xata yunus ni saa wax wax yo xamne ku amul xam-xam deug deug rawtina xam-xamu baati mu mënoo ko dégg noo koy déggee nekk naa yónent ba xamne yàlla yoni na ma te adama mi ci digante ban ak suuf ak ndox li neex naa dégg aadama mii abul bachar nga xam ne mbooleem doomu aadama yi moo leen jur aadama mi ngi ci diggante ban ak ndox yonti yàlla Muhammad nekk Muhammad ba yëg na yàllaa ko yónni ci kan ci ñan jëfandikoo sa xel ba xam doo ko weddi dafa am foo xam ne xel day taxaw xol mooy ñëw waaye xol bu buñ duy leer moo tax mu nangu wax ji rafet njort ci ki wax xam ne du kuy juum ndax moo la gën a seex lu juum boo seetloo jamono yi xewoon na fi ci kilifa gu mag gu wax wax joo xam ne ak a neex a dégg ki xam ne salafiste la wala dafay woote woone gëmul tarixa gëmul tasa wuuf kooku bu ko weddee du bette ndax maqaama bi ñuy jàngee loolu nandu ko xam ko ba mën koo tasaare moom dafa duggut ku duggul british duggoo ci école boo xam dañuy jàngalee anglais bu ñuy làkk nag làkk goo xam ne anglais ca la jëm yow français nga xam arabe nga xam loo fay wut du sa cër nii la demee ci waxin woo xam ne ni mu waxee mooy bu yàlla toogoon yoon saa sam toog sëñ tubaa toog ci sëñ tubaa laa jëm <coughs> mu mel ni wax ju rëy wax ji lu ci rëy wax ji laa wax ne lan moo ci rëy wax ju woyof la. ndax sañ tubaa mooy buntam ci yont bi sëñ Tuubaa mooy buntam ci yàlla te sëñ tubaa ndax da nga dem ci moom moom moo yàlla la yonent bi moo yàlla la sa borom mënu ko sax xalaatu ko boo demee ci sëñ tubaa fa mu jëm ak yow mooy ci yàlla ak yonent saa salaam képp te gëstu na ñun ñëpp benn waaye ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko gannaaw bu yàlla jàll ak yonent bi sëñ Tuubaa dana ko ñooñu buñ jàllee duñ ma fa bàyyi nga di ma fa fekk. kon kay boo demee ci sëñ Tuubaa dem nga ci yàlla dem nga ci yonent bi ci ki ngay dem mu doy waar mooy koo xam ne boo demee mu làq yàlla làq yonent bi yemal la ci boppam kooku boo demee ci moom ci moom nga yem da yàlla dalay raw yoon saa sam raw la waaye nga dégg coow li ñëw ngir fi mu seeg seytaane rek ak jaxase yàlla ak dara jaam yoon saa sam nga xam mooy sangu mbindee fii nuñ fi nekkee ngay dem ci keneen lu keneen kan keneen kooku daa am. koku nekkal fi ñi kep kep kep jeex tak ci ñom lepp ngeen ñàkk dégg rek ta ki ngay weddi mo la gëna ragal yalla mo la gëna jup gën la baax gën la bëgg yonent bi suñu borom lolé lepp da fay mbal mo xamne dañ ñuko sanni rek ngir jël ñu ba yu bëré bëré bëri duñu ñor gis nga julit ñi buñ nampon njàngale yonent bi dëgg-dëgg te jëfé ko jarul ñuy waar kenn nit ñay dem ba xamne ne njàngale sallallahu saa wasallam mo gën bëpp jangale te la jamono tool ni mu jàngalee finance moo gën ni mu jàngalee éducation moo gën ni mu jàngalee suñuy problème sociaux niñ ko war a régle mooy li gën waaye dañ koo xamul <clears throat> asaka rek daanaka leeraloon na lu bari jëlee fi ñàkk gu bari waaye ñàkk dégg ak ñàkk xam bëri na ko asaka war koo xam ne boo ko laajoon nuñ koy génnee xamu ko. te xoolal ni mu nekkee contribution par rapport a fi jamono toll ci ndóol am ñu de denc milliard nga xam ne lañ ca war a génnee dëgg-dëgg bu ñu ko génne woon jamono saa su nekk du deñ mukk deñ ci ndóol ndax koo jox asaka ren bu déwénee boo xefee mu génnee asaka moom muy entraide sociale boo xam ne foo ko natt weesu na ko te asaka daanaka at baat la waaye joxe gi war suñuy biir mooy joxe naafile yi. ci jàppalante ci dimbalante te yooyu saa salaam jàngale ko kon kii daa mel ni liñ mën a nàmpee ci moom ci xeeti njariñ ba léegi jëfandikooguñ ko ko Mahatma Gandhi ku siiw la ci àddina daan na wax ne saa bu jàngee téere boo xam ne ci biographie yoon saa salaam lay wax nee na da doon ñaan yàlla téere bi gën a gudd téere bi gën a yaatu ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lay gësu kon ñun jullit ñi kii suñu yonent di ngën ji mbindeef nga xam ne fu ñu tuddee turam ñu fetasu buñ ci yem fetasu doyut da nga koy gëstu ji xam lim la indil lan la ak fan la la fekk ak fu mu la jëmee lii su fekkee am na yaakaar naa ne mbaax ak yiw akuk defaru ak sell ak àdduna gu jag dana dolleeku waaye tey boo seetloo àddina réewu jullit ñi mën nga ne ñoo gën a ndóol boo demee ci réew réewi jullit ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ñu jóge ci ndóol daanaka seen jubluwaay tey caaxaan kese la boo nga seetloo ci jamono jii maa ngi xalaat na ci kanam tuuti am na réew mu siiw di réew yonent saa salaam buñ ko tuddee léegi xel yi dootul dem ci yonent bi dootul dem ci Kaaba gi dootul dem ci Médine ci football la jëm mais loolu dafa mel ni jullit ñi dérangé wu leen bu ci kanamee tuuti boo xefee réew mi yonent saa salaam ganee jamono mooy nekk capitale du football. liñ ciy tuur ci dërëm te jullit ñi xool liñ doole ci àdduna bi dafa mel ni lu normal fekk du dara caaxaan kese la buñ dooleel bu yàggul coupe du monde bi suñuy mbokki jullit ñoo ko organiser def ci kéemaan yu rëy rëy mu nuru lu am solo waaye fekk ne am na leneen lu ñu waroon a gën a tal bu dee nànd nañ njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggat yaram moo ñu ko jàngal war na di mais daa am nu ñuy tàggatoo. su ko defee nag yéeféer bi moom mën naa xarañ ba indi tàggatukaayu yaram woo xam ne mën naa bañ a dëppook sa pas-pas yow bàyyil ko ko fa yow nag ci sa xel ak sa xalaat ak sa xam-xam nga sos weneen woo xam ne moom mën na koo soxla <coughs> waaye boo sosul dara moom mu sos te xumbal ko lool boo xefee yow yaay bàyyi sa pas-pas yow fekki ko te fekk na yaa waroon na sos lu soxla yaa am yónent bi te amu ko yaa am alquran te amu ko yaa gëm yàlla gëm yàlla gu wér te moom gëmut yàlla waaye ñun jullit ñi ñooy sàggan lool yonjox lool du ñu produire dara di xaar yéeféer bi produire ñu jëfandikoo su ko defee nag mu woyofal sa pas-pas moo tax benn borom xam-xam dafa wax ne démb dañuy xeex ak yow rey la nga yóbbaale sa pas-pas boo demee texe mooy xare yi daan am yéeféer yi di songu jullit ñi yéeféer yi ku ñu rey jëm jee dee waaye pas-pas ba moo koy musal ndax pas-pas ba moom dana set dana sell biir ak biti tey nag fi xeex bi toll nekkatul rey bakkan fi xeex bi toll dañ lay bàyyi ngay dund ñu def le produit di la jëfandikoo num leen neexee ngir yokk seen alal ngir yokk seen réew ngir yokk seen koom-koom te nga nangu lan moo ko waral dañ laa gën a xarañ ci xeex dañ laa gën a xarañ ci communication gën laa xarañ ci yu bari boo seetloo tey ñu baree baree baree bari sag gi ñuy am ci jàngaloo seen doom wàllum français bokkul ak sag gi ñuy am ci jàngaloo ko alxuraan dañ koo couleur couleur couleur ba mu rafet lool ba nga xam ne xale buy génn ci kër gi jàngi ca français ba gis nga saag ba. yére ya boo demee ca classe ba taabul ban ya maître ba ci colka ga kere ya ak mbind ma day rafet lool ba daanaka sag lay doon ci waajur yi waajal na boppam ngir fay alal ju bari ngir xale bi jàng français waaye xoolal buy waajal xale bi ngir mu jàng alxuraan sol na daal yoonam nekku ci kii la te daanaka du wut ne sax xam-xam baa ñu ñor waaye daf ñoo lëjal ci biir kër gi. xale vacance la nekk vacance la nekk jàngut gannaaw école tëj na te bu desee ci biir kër gi la jël ñu nañ ko yóbbu ci sëñ daara bi léeg-léeg weer day dee sax la la fa war daanaka doo ci sawar tëj boo demee ñeenti téeméer la wala ab junni lii nag gis nga luñ togg bu yàgg yàgg yàgg yàgg la du wut ne tey lañ ko yekk togg bu yàgg la dafa am pas bu ci laxasu mag ñi leen koo xam lool moo tax dañ daan wax nañ jël xam-xam bi te bàyyi leen seen jikko <clears throat> te fekk ne jullit am na fu mu war a teg dundam jullit am na num mu waa war a waajalee njabootam rawatina ci jamono bii ñu jëm nga xam ne ubbiku gi foog na tuweesu na ko yéeféer bi ca dëkkam lay nekk jarul muy ñëw di la yaral sa doom bii fii ci biir senegal mu mel ni kon gëstu yonent bi gëstu njàngaleem war na waxtu wu nekk rawatina ci jamono bi ñu toll ndaw ñi xam loo leen jaar-jaaram xam loo leen ay doom teel koo def ci ñoom rawatina alxuraanul karim lu war la ci dem ba ràññee jëmba ba làq ay at tuuti fexe ba gëstu saayiram gëstu baatinam loolu moom dafay doon farata ci yow saayir bi mooy ñoŋal sa saayir baatin bi nag mooy ñoŋal sa baatin te te ñu bëri nag yëguñ li baatin bi war a ñoŋal suñ baatin am na jullit ñoo xam ne xamuñ ne baatin boobu leen am na nit boo ko seetloo dëgg dëgg dëgg saayir bi xott la rek baatin bi mooy xolam baatin bi mooy ruuxam am na ñam wu muy jëfandikoo am ñam wu muy dundee te yónni saa salaam bàyyi ko fi boo ko soxlaa foo koy fekk ndax mooy fii la yonti bi jaaroon xare yi la xare def na li dugg na fi génn na fi déedéet loolu yir la da nga koy gëstu xam ko xam ne ku jàmbaare la woon ku am fit la woon ku farlu la woon nga fexe ba jàmbaare fexe ba am fit fexe ba farlu xam ne yonti bi meloon moo gën waaye yombut de yunus saa roy ko ci sayir moo gën a yomb roy ko ci baatin ndax njàmbaare geeg fit gi daf cee am jaglek suñ borom waaye xal na yoon woo xam ne ku ci jaar moom la suufiyanke kay nàmp xam ko xàll ko it woo ci ñi leen topp yoonu tudd yàlla yoonu noor sa bakkan nitu yàlla te jëm yàlla kese tax ngir lan mu tarbiya la tarqiya la defar sa biir ak sa biti ba nga seexlu lépp lu yàlla gërëmul mag gi nga xamne mom lañ ko wara mag ci baatin mom lañu ginaawal motax pass pas julli gi woyof toy ba damay faral di wax ne xara Badar bu takaton ñi joxe ngant dana bari parce que l'islam jaralatu len sen bakkan bi l'islam jaralu la sa bakkan l'islam bu la jaralu sa bakkan xare dana tak ngay xare ji <laughs> te wax deug yalla ay millions yo denc ci bank mën la jaral sa bakkan waaw ñi ngi songu géej gi ñi ngi songu Nicaragua ñi ngi songu fu ne ngir bëgg a tabax ci àddina tabax boo xam ne ñun ñi koy tabax xam nañu yàgg yàgg ci màbb la jëm di sàggane barab ba nga xam ne nag kenn du ko moy <clears throat> yàgg yàgg ñëpp a fay teew ñëppay dem kon yitte jiñ jox tabax dara ci àddina <clears throat> dafa ëpp. te tabax sa àllaaxira du ca gàllankoor dara waaye nag jiitalal àllaaxira yàlla moo wax ci alxuraan ne wabtaqi fi ma atakallaahu daaral aaxira moom la ñu ko tudd li ma la jox ci jumtukaay na nga ci defar sa àllaaxira waaye nak wala tan sa nasibaka mina dunya sa cër ci àddina bu ko fàtte loolu mooy àddina soo fi nekkee yittewoo nga lekk yittewoo nga naan yittewoo nga nelaw yittewoo nga barab boo xam ne mën nga faa dalloo yor ngay waajur te looy gën di màgg seen doole di gën a néew nga war leen a taxaw am lu la war moo tax liggéey nekk lu sacré ci lislaam waaye nag boo bëggee jël sa dund képp def ko liggéey ba mu siiw lool ci réew mi ngir bëgg a dooleel liggéey rek ñu ne liggéey jaamu yàlla am liggéey buy jaamu yàlla du dafa am liggéey boo xam ne jaamu yàlla la am liggéey boo xam ne mooy yàlla la duñ ko leeral nag kuy fàggoo fu baax di def fu baax li leen lislaam jàngale waaye waxuñ nag fu la neex fàggoo li am solo mooy defal fu baax déedéet fa ngay jëlee dañ koy càmbar moo tax jullit lu mu def lu dul baax rek baaxu ko gën bëgg a baax gii nag moo tax gëstu yoon saa salaam gëstu njàngaleem am solo lool te mboolem ñi ko donn ci wàll woowu li ko sa lañeen leen toppee boo seetloo sëñ Tuubaa liñ ko toppee lépp lépp lépp weesu yoon saa salaam moom mu xam nga ba du ko moy ci dara dundam gépp dundam gépp dafa fexe ba méngoog moom ci jëf ci pas ci yitte ci doxalin méngoog moom ci lépp ne lu mu bañ bañ naa ko lu mu bëgg bëgg naa ko kii boo ko toppee koo topp léegi nag ku bëgg a topp ku mel nii foo jëm <clears throat> ku bëgg topp koo xam ne léppam léppam biir ak biti wuutewul ak yoon saa ci dara foo koy fekk ak nu muy mel neexut a gis neexut a jëflanteer te ñi koy woote woo bari lool waaye kan la ci biir gaañ yi moo tax Sëriñ Tuubaa wax la ci masaalikul jinaan ne waxta biir rijaala xam la soxba wala tusaaxib humran aw zaarax ba <clears throat> balaa ngaa ànd ak kenn na nga ko nattu bul topp dof bul topp borom xemmemteef borom xemmemteef mooy sëriñ bu la gën a bëgg àddina jaxasoo buur yi jaral ko lu ne ngir njariñ li mën a bàyyi ko ci buur yi te dégg nga sëñ Tuubaa lim ñu jàngal ay yoon sax ci ay téere mu ne buuru àddina boo xam ne daa jeng ku bokk ak moom teraanga am fii boo lëggee bu ñu koy toroxal nga bokk ak moom torox tàngi nga parce que buur teg yëf yi ci yoon yomb ko koo xam ne ñëpp lay jay boo tegul yàlla mi la faalewul ci sa kanam jéng dana la yomb lool xam ba xam dégg li ma wax ku ñépp di jay daanaka ñu bare bari ragal ko ba wax ko dëgg sax jafe leen kooku mu jéng jàppandi na lool ki jéng nag lu mu yor moomu ko bu la ko joxee saxal la daa am lu mu bañ nga wax daa lu mu bañ nga def boo ko nangoo nag doo yonent bi yow boo ko nangoo doo sëñ Tuubaa ñoom seen ngor duñ ko jaay kenn seen jom duñ ko jaay kenn maam Serigne wax na ne bi muy jébbalu ci sëñ Tuubaa ñaar yi da koo téye muy ngoram ak jomam jom ji mooy tax lu metti metti metti metti neen du dellu ginnaaw ngor gi mooy tax boo liggéey ba mu neex moo xam ne lépp yow liy jafe nag bëri na ku toog ci siis boo xam ne la ko fa taaj xamu ko kooku nag wanteer siis ba day daal di yomb lool wax joo xam ne boo ko natoon dëgg-dëgg daray dëgg newu ci daray njub newu ci te kilifa lay dal lii du musiba musiba la te fa la jamono toll boo yorul dara daanaka gis yenn ci kilifa yi mën na laa jafe boo bari lee nag balaa ngaa dem ñu xàllal la yoon wi mu mel ni dërëm mooy tax doon dara tey te dërëm taxu ko am solo bëri na ku bari dërëm am koo xam ne bari lew ko gën ko fu fa yàlla bari alal taxu la gën néew alal taxu la bon lay tax nit di gën a ko bon ca xol ba lay nëbboo ko bóof suñ bay ko wax ci xol yi la ñuy gënantee fa suñ borom subxanahu wa taala nit ñi nag yëre yi la ñuy xool am am bi la ñuy xool barab yi nga làq ak nangam ak nangam moom la la ñuy wegee taxu ko am solo. wolof day wax ne nit la muy gënee moromam buy su buy sangu du ko summi loolu mooy du ci yére yi du ci saayir bi ci biir la pas-pas bi la léegi nag lislaam lu mu ñu indil luy baaxal suñu biir googu defar ko ba mu set wecc ba yàlla gërëm ko doo fekk rëy doo fekk kañaan doo fekk ngisal doo fa fekk soxor doo fekk bokkale yàlla doo fa fekk yéene sa morom loo xam ne safaan la mais mi ci lislaam yónni saa salaam jàngal ñu ko ne al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisaanihi jullit pire mooy koo xam ne ay mbokk jullitam mucc nañ ci làmmiñam mucc ci ay loxo seen làmmiñ duñ la ca seeni loxo duñ la ca te xoolal làmmiñ ak loxo li ñuy liggéey tey demal whatsapp bu fa jëfandikoo làmmiñ bu fa jëfandikoo loxo loo ci man demal facebook bul jëfandikoo làmmiñ bul jëfandikoo loxo loo cay man réseaux sociaux yi ba mu jeex internet ba mu jeex xoolal làmmiñ ak loxo li ñuy liggéey tey ci jamono ci yàqante gu jégg dayo nga xam ne ni ma koy faral di waxee mooy Sénégal émission yi gën a dox mooy yi yàq deru nit yàqante boo demee ci site yi itam vidéo yi ñuy gën a xool mooy yàqante rek def na lu bon wax na lu bon jaar na fi dugg na fi génn lu ñu tu sa morom te xoolal ni ni ko lislaam si bi loolu lim ñuy jàngal mooy ñun ñoo xamul ñun ñooy ñan ak fuñ ñu woo bu jamono tolloo foofu nag faw yàlla indi ku yeesal ku yeesal mbir yi delloo ko fa mu nekkoon waaye du yeesee ci ñëpp mukk ci àddina ci ñenn ñi rek Sëñ Tuubaa daan na wax ne fanaanee tawte xëy aw mar rey la ku fanaanee tawte xëy dee ndax mar Sëñ Tuubaa nee na li koy waral mooy ñàkk taataan <clears throat> boo taataanul mën ngaa xëy dee. ndax mar lan lañ taataan ci yónni saa salaam ñi fi wutu yoon saa salaam lan lañ taataan ci ñoom ba mën koo tari suñ dund su ko defee nag xaw a mel ni saxaaba yi daanaka doo ko gis parce que ñi ñuy xoolee yónni saa salaam da cee bëri ñoo xam ne seen pas-pas du yónent bi seen pas-pas du lislaam seen dërëmi boppaleen ji gën a ñor su boobaa nag day xam ne kii du yónent bi. téye sa bopp ba gis yonent bi jox ko sa bopp déglu ko dox dem xam ne sa njëriñal bopp moo lay jëriñ jamono àgg na ci yàqu foo xam ne gis nga kiy wax dëgg koo gën a tumuraanke amul ca saasa dañuy dal sa ko jëwriñ jaasee ngi nii looy lay dégg de jëwriñ booy ba waayal sa bopp de ci bëgg a wax dëgg yee nit ñi parce que ñiy nalawal nit ñee bari te dañ ciy dundu te nit li muy dund ku ko bëgg xañ mu song la amul ma dem te ñëw balaa nga ko doon xam nga ubbi boutique di jaay loo xam ne mi ngi dox nga jékki-jékki am ko ubbi boutique buy jaay li ngay jaay ci sa wet nga xool ba xam da ko bëgg wala nga ko noonu du la neex de te defu la dara li ngay jaay lay jaay rek léegi nag bu ñëwoon di tëj boutique bi ak di ko màbb nag nooy def daa am ñoo xam ne dañuy dund ci nelawu gaay yi kiy dund ci nelaw yi bu la gisee nga bëgg a yeewaaja yow dundam nga ko bëgg a xañ du gis ne da ngaa yee waa ji de waaye dundam bi juddoo ci nelawi waay ji moom lay gis ne moom nga koy xañ moo tax mu lay song te ñiy nelaw te yëgu ne ñi ngi nelaw foo ko natt na ko <clears throat> li ci gën a yee mooy dangay ngay yee nit mu lay xamal ne bëggut a yeewu parce que naxe yi moo yàgg neex ci moom te yeewu gi di ko jural coonoog fitna yoo xam ne parewul ngir dagg ko ndax koo xam ne mu ngi ci biir këru sëriñ xamut yàlla yeggut ci yàlla jeexul ci yàlla xamul sax lu mu war a toppee sëriñ bii waaye bëgg na ko jeex tàkk ci moom nga xëy nag bëgg koo leeralal ne ko sëriñ bii nga topp diir bu yàgg bii li ko war sa digganteeg yow defu ca dara te sëñ Tuubaa nee na bépp sëriñ bu mel nii ba ko moo war te moom mànd na ci moom kii li nga ko wax li nga ko wax neex na ko mën na koo naqari lool waaye moo gën ci moom moo gën ci moom fuuf moo tax gën ak gënal bokkuñu. nit di nga wax di ko wax li li gën ci moom fekk ne moom am na lu ko gënal te li ko gënal gënul ci moom da koy gis ci sama sëriñ ma gënal ku mu neex wax ko bu la neex nga ne moo la gënal yonti bi sax waaye moo gën nangam ah foofu nag nga tooñee moo gën dafa am lu bare bare bare bari lu mu dugal waaye moo ma gënal loolu yow la engagé waaye ndax wér na nit ñi yi leen gënal dafa dëppoowul ak li gën sëriñ bu mat sëriñ la ñuy topp sëriñ bu mat sëriñ la ñuy jébbalu sëriñ bu mat sëriñ la ñuy jaayanteel ci toolu yonent bi saa salaam bu dul loola koo jaayanteel jàppe ko jëwriñ ci tool bi surgale ni yow da ngeen waroon a wuti jëwriñ dama ne koo jaayanteel ci toolu yonent bi saa jàpp ne ab jëwriñ la bu ko matee. daa la bayloo bay bu rafet boo xam ne dalay lay jural sa ngërëmal borom te bay bu rafet ku ci nekk war koo xam ndax borom tool bi dina la wax jërëjëf nga di ko dégg waaye bay bu ñaaw nga nekk ko ci biir tool bi dañ xëy dàq ci tool bi dana am ñoo xam ne doo leen jege mukk te ñu ngi ci biir tool bi dama ko daan faral di misaale mooy ku ne xam ne sëñ Tuubaa jullit la Cheikh Tidiane jullit la ñun ñi ay jullit lañu kon ñoo ci biir këru lislaam ak ñoom. ñoom nag fu ñu jaar ak lislaam ba seexlu lu bon ñun fu ñu jaarut ak lislaam bay def lu bon kon daa mel ni fi ñuy bayee ci biir tool bi bokkut kii day bay te dara lu bon doo ko gis ci biir mbay mi kii nag day bay di defaale lu bon ci biir mbay mi te xam ko it nag te mën naa nekkit moo tax yàlla ubbil ñu buntu tuub fan la ñuy jaar ba tuub tuub goo xam ne dootuñu tuubaat mooy tuub gu lay tax a bàyyi lépp loo xam ne day day waral tuub. sëñ Tuubaa nee na tuub misaal nañ ko ci wàccu waaye misaal bu ci jub la ndax wéet du ca delloo borom wéttaliku du ca delloo borom lii mooy tuub piir dellu naa ca ginnaaw te dootuma ca dellu mukk mukk mukk su ma wéetee ak su ma wéttalikoo lii jafe te fekk ne yoon saa salaam bàyyi na fi loo xam ne kilifa yi ko taw di ko joxe ku leen jege bu ñu la ko joxe nga seexlu lu bon dootoo ko bëgg moo tax sëñ Tuubaa wax ne boo xasee seexlu lu bon kenn gën tulaa seex seex dëgg mooy seexlu lu bon nañ càmbar nak suñu seex yi tey suñu sëriñ si tey suñu kilifa yi tey fu ñu teg seen dund kilifa ci diine lu jafe la kilifa mooy kii liif la ab liif mooy ku jub xocc ba boo ko jegee mu jubbanti la kooku nag yow mi nga xam ne yaa koy toppi yaa koy càmbar ndax sëriñ taalibe ko gën a mu doon kum neex wax kum neex nga tey mu doon sëriñ yomb di waaye mat sëriñ mooy mbir mi te boo matul sëriñ it taalibe yi ñoo lay def sëriñ toppee yaay xëy toppi ku la neex léegi nag balaa ngaa toppee jóg xoolal sart bi wa qaddimil ilma ma suali an kulli shay'in kaana ja iskaali nee na balaa ngaa def dara wala nga di ko wax jiital ci xam-xam ak laajte toppeek démb ak toppeek tey lii mooy différence bi mag ñi dañ daan xam li ñuy wut lan la ñu ñëw ci kiñ ko yaakaar ne ko lii moo ñu tax a jóg su fa nekkee mu teg leen ca yoon wa su fa nekkul ñu wuti feneen mais tey xewet la faaw ma am sëriñ faaw ma bokk ci daayira faaw ma nangam ak nangam ak nangam waaye fi nga war a bokk moom demal seeti nag téere ya nga xam ne fa lañ jàngalee ki nga war a topp nu muy mel sëñ bi leeral na ko di xoqal bu ko ba mu jeex melawu sëriñ bu mat sëriñ la waaye ana ñu jébbalu te xam ko bëriwut bëriwut. boo ko jàngee ba mu jeex xam ne sëñ Tuubaa lii la wax ci sëriñ mu wax ko ci taalibe yi boo jéppaloo yaa ngi xaar loola boo ko xamul nag doo xaar dara ki xaarul dara lu ko fa fekk mu jël waaye ki xam di xaar ah li ko fay fekk bu méngoowul ak li muy xaar doo doo ko gis yow maam Cheikh Fall Ngom sëriñ yam jaaroon jàppee leen sëñ Tuubaa te duñ sëñ Tuubaa dañoo xëy gisatuñ ko. waaye bi mu nee jàkk sëñ Tuubaa ne ko tànk yàlla laa topp ba mu sar ci sa kër gi bi ma fi duggee la ma réer su dee mi ngi fi wax ma su fi nekkul wax ma fu mu jaar ba génn ku dul yàlla taxu maa jóg lii mooy taalibe taalibe yàllaa ko bi sëriñ bi yéen a bokk borom yàllaa ko bind bind la moom la moom ko sañ ci yow loo xam ne noonu la ko ci sëriñ bi yàllaay mbir mi sëriñ bu mu fi bind toon sëriñ ba mënta am kàttan ak pexe bind boppam moo tax may faral di wax ne ku ñuy màggal ku mu mën a doon yàlla tax ñu koy màggal dañoo yëgul rek koo fonk jox ko cër bu ko yàlla bindutoon foo koy fonkee jox cër bu ko yàlla teeloon na rey foo koy fonkee jox cër foo koy màggalee du am moo tax bokkaale yombul de wahdahu laa sharika lahu rek li ñuy def lañ xamul li ñuy def lañ yàlla nañ yàlla may xam-xam loolu rek am solo kon nag boo toppee kilifa goo xam ne naxu la dafa ànd ak yow ngir yàlla kese kese kese kese kese war ngaa xam ne kilifa gi jaajëf yaay na Cheikh Moussa mi ñuy ŋàññi loolu ko tax a jóg di Cheikh Moussa Cissé mi ñuy dégg di sëriñu yàlla yàlla yi li tax ñu ne yàlla yàlla yi wan leen yàlla kese la ak yóbbu leen ci yàlla kese su ko defee nag ka wane wut yàlla yóbbeewul ci yàlla day bëgg kuréel bii ñu ñaaw njort ci moom loolu ku jàng marketing xam ko sam benn waaye moo samay nettali <clears throat> boobu mi ngi liggéey ci benn usine boo xam ne dañuy defar cigarette am cigarette bu bees génn dox lool ñu créé rumeur nga xam ne ñoom beneen usine buy def cigarette ñoo créé rumeur ci cigarette bu bees bi nga xam ne gaa yi xam nga Sénégal dañoo bëgg lu bees gars yaa nga ciy tux rek créé rumeur ne nangam ak nangam boo ko defee day am lu ñuul lu ñuul loolu baaxul ci dem parce que concurrence bee tax loolu am marketing commercial dafa am nit ki soo bëggee ñu jublu la lii tee ñu jublu la da nga koy dàq. moo tax Cheikh Moussa bi mu ne tëll leeral na sëriñ lii ko tax a jóg fii la jëm te di ko def ku ko déglu di nga xam ne nit ngay déglu pire moom deful boppam juuma wala kawtéef boo xam ne dalay jombale moom ni mel déedéet yont bi defut lii da lay xamal ne fi mu yem ci yàlla mën nga koo wéy yow di dem lim seq ak yow mooy xamal la sa borom delloo la ci sa borom su ko defee nga jaamu yàlla mu jaamu yàlla bu ëllëgee yàlla boo ko leen fay lii mooy dëgg. waaye sëñ bi ak a yéeme xool ko njabootam gi nangam ak nàngam yaakaar ne sëñ benn njaboot yàlla da na a yow nag yàlla def la ordinaire ba faw lii ak ndox la du nit yàlla du seet de yàlla suñ borom damay faral di wax ne askan woo càmbar fekk fa kuñ mën a wane kuñ mën a làq ci mbindin rek laago gi ngay gis ci mbooleem askan wu mën a doon askan woo dem fekk ko fa mën nga faa gis ko gisut mën nga faa gis ku déggut mën nga faa gis ko doxut. mën nga faa gis ku xelam naqari daa am ñu mën a nëbb ak ñu mën a wane te lii may wax am na ci askan yoo xam ne xarañ nañ lool xarañ ba ñu mel noonu ca ñoom boo xamee doo leen gis ndax daa am luñ tabax ci xel yi kii man la suñ borom laa dañuy yéemu ci yàlla ci tabax loo xam ne ci xel yi ngir bëgg ñu leen gën di jublu rek gën leen a fonk waaye am na solo jublu la fonk la waaye nag yàlla nga ma delloo ci yàlla lii am solo waaye askan woo xam ne ku judd baax na yàlla may ko kenn xataa yun amu ko tabat yadaa abi lahabin bi ñuy jàng abu lahab bàyyi la ci yoon saa salaam kon yàlla bu koy seete li am solo mooy amal pas-pas am fulla ak fayda bëgg lu baax bëgg sa borom ak ki koo xam ne mën na laa tane ci yàlla dimbal la ci yàlla nga ne ko maa ngi nii yàlla ma tax a jóg su ko defee Cheikh Moussa lii lay leeral sëriñ lii moo ko tax a jóg su ko defee mat na sëriñ bu ko deful yaa ko jàppee sëriñ waaye du sëriñ lii nag bu fekkee sëriñ bi na noona du bëgg kàddu gi jeex tàkk ci taalibeem may nag waxuma sax Cheikh musaa waaye taalibi Cheikh Moussa ku yendoog moom diir bu gàtt da nga xam ba xam sa sëriñ li ko war def na ko wala defu ko moo tax fi jamono toll ku korkorolul dara ku korkorolul joxe woo wird jéemoo wax gars yi ne xam yàlla ak nangam ak nangam boo xefee dajale ñaari dana la jafe parce que dem na ba leer ne daan naa bu yàgg di ne tey jii ko xam yàlla. mooy dof bi ku xam yàlla mooy dof bi waaye jamono gi ñëw boo xam ne ku xamut yàlla yaay dof bi yow parce que booba xam yàlla daa mel ni xewut boo nee xam yàlla ak yéen ñu ne déedéet nangam sëñ Tuubaa fu mu ko jàngal na léegi werante na gaa yi ba gaa yi dem ci téere yi gis ne sëñ wax na ko jàngale ko it ne sëriñ bu ko deful lu mu doonee sëriñ kon fu gaa jëm dañuy defar moo tax gis nga dañuy wax ne bul natt dëgg ci kiy wax déedéet. wax ko wax rek deug la man nga djum parce que nit la man na djum man na défendre intérêt bo wax lu dul yow da ngay fexé xam deug bo xamé deug ku wax ku wax nga jël waxam gi leer la ko ak deug ba xam depo na bu depo nga japp ko bu depo nga bàyyi ko bo xamul deug nak da nga naan diwa ko wax rek deug la fekk ne diw xamoo lum mu ci wax ji deug ma ta xam te suñu borom inna allah yalla ay deug yalla ñu xam yalla Cheikh Moussa lii ko tax a jóg moo tax waxtaan wi lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla ngay dégg yàlla yit mënoo koo dégg déggin wu leer te mooy yonent bi saa salaam ndax mooy bunt bi nga xam ne ci lañ koy jaare lawlaahu maakaanal wujudu fil wujud walam yakun lanaa rukuun wa sujud bu dutoon ak yonent bi benn mbindeef du am bu du ak yonent bi kenn du rukkoo kenn du sujud mu mel ni kon ñaari maqaama la bee ca leer gala ca la yàlla sàkkee lum sàkk gii nag ginnaaw bu mu feeñee la woote li mu woote jàngal ñu nan la ñuy jaamoo suñu borom ba làq ngërëma kon jëmm ju tedd ngoog ku tedd kii nag kum di sa yónent mu wax ne bu istu li utammima makaarimal axlaaq dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi nga ne mooy sa yónent say jikko ñaaw lu mu doonee sa yónent ci école sàngam laa inscrire ñoo dàq jàngale tarin maa yor ngën ci yónent yor ngën ci téere yor borom bi wér waaye daa mel ni maa gën a woyof pas-pas maa gën a sàggan yéeféer bi moom ëpp doole xel nanguwu ko niñ war a toppee lañ toppewul buñ ko toppewee rek doo ñee kenn doo sibooru kenn ndax li nga yor dalaa doy sëkk ci biir ak ci biti lii nag balaa koo julli dëgg-dëgg di dund dafay am kilifa gu baax gu tedd gu ko jottali loola ci barkeb yonent bi ci ñun nag koo koy Cheikh Moussa Cissé Njambe borom daaru yàlla nañu ko yàlla fayal wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. suñuy ñeme kenn dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam danaa wax su ko xaritoon jar danaa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.